Bessél <laughs> lii dañuy nuyu képp ethnie bu nekk hmm. Sénégal parce que quand de Sénégal mooy ethnie hmm. nekk Sénégal nga dem ci Haalpulaar dem ci Lébu yi te boo ñëwee si pël il y bokkul parce que dafa am pël firdu am tukulër am pël euh, rëw am pël Niger am li nga xamante ne ñoom ñooy pël Fuuta yi te ku nekk sa accent bokkul ak accent wu sa moroom mhm. tey boo demee si pël bi nga xamante ne mooy pëlu Kolda Firdunke yi Pinda Jamtan boo ñëwee si Tukulóor Mbaɗɗoon oɗon celli boo ñëwee si pël Fuuta ñu naan la ana la ton donc tout le euh, <laughs> mm. bi du nekk voilà tonalité bu euh, nekk benn boo demee si séeréer yi aussi noonu la par pàcc la dafa am séeréeru noon séeréeru saafen séeréeru singandum ñii di naan naafiyoo futub na xam nga bokkul mhm. loolu yëpp séeréer la futub na nuyoo la naafiyoo mais langue yi ñëw différent te lépp séeréer la mhm. nga dem si joolaa yi aussi yi nga dem si saraxule yi nga dem si soninke yi dem ci njaago yi dem ci balante yi dem ci papel yi dem ci mankaañ yi mhm. daal di dem tamit ci baynunke yi daal di dem ci koñaaji yi xam nga yooyu yëpp ethnie yoo xam ne ñu ngi nekk fii ci Sénégal euh, ethnie yu bëree bare donc loolu moom moo ëmb li nga xamante ne moom mooy Sénégal mooy culture bi nga xamante ne tey boo leen ko xoolee mhm. def ngeen ko te da ngeen sol cuub ethnie moo dem ci Sénégal dañu am seen cuub mm-hmm. waaw seen façon solu mm-hmm. tey yow lii nga sol waaw seetu tukkuleer buy sëy si mm-hmm. lii lañ koy solal yére bu weex bi nekk ci suuf kon seet laa fuñ toll nii waaw mun nañ ne wax seet nga yàlla ñëw ci <laughs> ñëw ci gaaw voilà donc gis nga loolu yëpp dafa am boo ñëwee tey si sama jongoma bu jekk bi joolaa bi euh, xam nga joolaa tamit dañu am ñaari façon solo joolaa dafa am ñaari façon ñaari façon sol sol mooy ban sër bu gàtt bi des fois da ngay gis ma def sër bu gàtt waaw mm-hmm. am lu muy signifier ak sër bu wàcc ba ci suuf sër bu gàtt bi lu muy signifier sër bu gàtt bi mooy ko musul sëy moo mm. koy wod ki nga xamante ne dafa sëy sërëm dafay wàcc. waaw la la yaa ngi zoom cëm sama caméra maa nekk du yéen. teg si tamit sëy ndax sërëm bi ngi donc nga dem dem ci kat yi tamit mu daal di def cosaanu séeréer. te séeréer tamit dañoo am ñoom sër yu bëri la ñu am. Hmm. mais séeréer dafa nuroog joolaa. waa xam nga tey ethnie boo dem dañoo xaw a nuroo culture ñun ñëpp mhm. benn culture mais sër bu nekk dafa am différence. Mhm. tey sër bii mu teg ci kawam. boo leen xoolee laay wuyul nee bi. waaw sër bu weex bi mu bu mu teg si kaw nii. boo xoolee sëru rabal yi da ngay gis des fois ñoom mànga de mbëri. waaw dañ koy faral di sol. gàllaaj la waaw gàllaaj la. Mhm. te am na beneen buy jiitu ci suuf boo xam ne boobu gàllaaj la bokkul ak bii. Hmm. nga dem ci njaago yi tamit dafa am signification bu mu am ci ñoom nga dem ci baynunke yi pare et cetera et cetera parce que tey bu buñ ci doon lim du ñu jóge si du ñu jóge ci plateau bi mhm. tey nga ñëw ci euh, ki nga xamante ne rek euh, moom mooy Miss Sénégal. Astou mhm. Astou ah, ma koy jaajëfal moom tamit mu daal di sol cuub bu rafet xam nga bu ñu nee palmaan palmaan dafa nekk cosaan. Mhm. waaw te cuub léegi la ñuy jël produit chimique di ko cuubee mais bu njëkk ba cuub dañ ko doon béy ba pare cuubee ko ñax la. nga ah. c'est la ah, bu la dara rëcc daggal pàcc ñax ñax lañ doon cuubee. Mhm. mag yi dañ doon jël coton ràbb ko jël cuub bu xew amee mariage am dafa am lu ñu koy cuube euh, góor ñi tamit séeréer yi wala joolaay bu ñu duggee lël dafa am lu lu ñuy sol gis nga ci naar tey boo demee dañu fonk cuub naar boo demee palmaan lañ lay solal. Mhm. bu ñuul kukk. Mhm. buñ la ko solelee wala bu xonk bii mu mhm. ndaw si duggee néeg bu palmaan bi takkee waa ji ci yéreem bu weex bi ku góor ki dañuy xam ne kon fekk na ndaw si mu nekk jànk mm. duñu ko waxee noonu mais yére ku góor ki mooy wax mm, mooy takk mooy takk ci cuub bi mooy palmaan waaw communication la kersa gaa ngi dugg mu ngi noonu xam nga donc tey man dama naan Sénégal li ñu am kenn amu ko nga dem ci lébu yi mm-hmm. te ku xam culture lébu xam lébu dañuy tegle ay saru rabal ba mot fukk. dëgg la lan moo war tax lébu yi ñuy ñuy bëri ay sër. parce que dañu ne eh, ci lébu yi ñuy bëri sër dafa bokk ci taaru jigéen. Mm-hmm.